ginnaaw bi ma leen dégloo ñoom experts yi jël naa ay dogal ci li nga xam ne mooy wareefu état mu wareefu nguur gi bi si jiitu mooy dinañu dinañu dindi tere ndaje public yi nga xam ne dafay faral di am moo xam ci stade yi moo xam ci bëpp xeetu manifestation publique sur l'ensemble du territoire fii diiru fanweeru fan selon ni feebar bi di évoluer ñaareel bi tam gis nañ ne am na bateau yu doon ñëw lu bare di indi ay nit yu jóge bitim réew loolu tam dakkal nañ ko euh, fii ba jëmmi jamono te it wax nañu ñu renforcer contrôle yi ci frontière yi nga xam ne mooy frontière yi ci suuf ci frontière yi ci suuf wala frontière yi nekk ci aéroport yi wala boog yi nekk ci poor bi loolu yëpp am nañ waxtaan bu yaatoo yaatu tey pour yokk kattan ak nit ñi ko war a saytu ak matériel bi ñu war a yor pour que tam euh, feebar bi bañ di ñu duggee ci frontière yi ñetteel yi mesure bi tam ñoo ngi ko jël ginnaaw bi benn xale si ñu ñu téye woon ci Touba génne dem école te mu bokkoon si ñu feebar kon déjà waa classe boobu ak ñam mu gisoon ñëpp dañ leen di daal di ñoom itam isolé ngir ñu bañ nag loolu yaatu moo tax ñu jël mesure tëj école yi ci diiru ñetti semaine moo moo bon à partir de lundi altine bii di ñëw maanaam école yi day tëj kon mel na ne weekend bi bu paree école yi dañu tëj si diiru ñetti semaine muy école yu ndaw yi école maternelle ba université ngir ñoom éviter moytu lépp loo xam ne dana indi ay jafe-jafe ci wàllu woowu ñeenteel bi tam mooy jël nañu ay dogwaay ay dogal pour renforcer protection maanaam kaaraange personnel de santé parce que ñoom itam ñoom docteurs yi ak infirmiers yi ñi nga xam ne ñooy njëkk a jot maladie war nañu bu baax a baax assurer seen kaaraange ci équipement ak ci lépp loo xam ne dana tax ñu moytu ñoom it ñu am contamination ndax feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul maanaam kenn jomb ko mën na dal si ku ne te mën na la dalee nu nekk ndax ki ngay toogal mu lay wàll peut-être sax doo xam ne ku ku yor feebar bi la loolu tax nag dañu war a gën a fagaru juróomeeli dogal bi tam mooy dañuy taxawal formalité yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko jëmale ko ci wàllu aj pour li jëm li li concerné jullit yi aj màkk wala boog pèlerinage chrétien ñoom it waroon nañ di def seen pèlerinage lu lu lu yàggul dem Rome dem Israël def circuit bi ñu daan def loolu yëpp dañ ko dañ ko arrêté ba jëmmi jamono mënatul donc taxawal nañu formalité yooyu ministre de gouvernement bi waxtaan na si démb ak yéen loolu tam mu ngi découlé si li réew réew yi nga xam ne fa lañ war a jëm jël nañ ay mesures ne seen réew fi mu nekk dakkal nañ lool lu mel nu Arabie Saoudite muy umra bi muy visite yi muy aj bi ñoom jël nañ dogal boobu ne ren ji suspendre nañu bépp activité bu jëm ci aj bi ba ñoom ñu gën a xam fu feebar bi jëm lii nag moo tax may wëlbatekuwaat nag ci kilifa diine yi di leen lancer appel mooy di leen ñaan ñoom seen bopp ñu taxaw ci mbir mi waxtaan ak seeni i jaboot waxtaan ak seeni i taalibe ngir lii ñu wax te wér yaramu askan bi tax ñu mën ko doxal ngir aar askanu senegal loolu jàpp naa ne kenn ku nekk ci ñoom war na ko taxaw taxaw si bu baax a baax ngir lii ñu wax mën a am maa ngi rafet it nag li nga xam ne kilifa jàngu bi def nañ ko ba pare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 du aaju ñuy def levée de maanaam ñuy def euh, prise d'arme donc benn prise d'arme mooy am au palais de la république pour mandargaal feetu 4 avril loolu mooy li nga xam ne moom méngoo ak tey li ñuy dund fii ci Sénégal kon maa ngi woo population bi yëpp population bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu respecté itam euh, li nga xam ne moom la wax kër docteur di wax ci wàllu euh, cetum loxo ci wàllu euh, lépp li ñu leen di santaane ci luy wante beeg raxas loxo yi surtout si ndaw ñi ak lépp loo xam ne ay mesures la yu ñu wax te ñu ngi koy génnee ci télévision yi bés bu ne di ko wax si rajo yi loolu buñ ko defee am nañu yaakaar ne suñu borom mën nañu jàppale ginnaaw bu ñu fagaroo ñaane aussi suñu borom jàmm mën na ci am maa ngi terminé ci suñu mbokk yu nekk bitim réew jamono ji ñoom jaaxle nañu lool ndax am na ci réew yoo xam ne tey Sénégal bëri na fa ay doom réew mu mel nu Italie réew mu mel nu France réew mu mel nu Espagne bëri nañu fa te nit ñi jaaxle nañu waaye li ñu leen di wax rek mooy fi ñu toll nañu ku ne fa nga ne na nga respecté tam li kër docteur yi wax ak nguur ga nga nekk réew ma nga ne la mu dogal bu ñu ne bu kenn génn bu kenn génn bu ñu ne nañu respecté ay recommandation nañu ko def nañ leen ko digalee te xam ni xëy na buñ ko defee ah yàlla mën na def sutura en tout cas maa ngi leen di waxaat suñu solidarité maa ngi ñaan aussi ñu nga xam ne bàyyi nañ avion yi di jël yoonu suuf loolu moo gën a garaaw parce que dugg si dugg boo xam ne kenn du la contrôler loolu da nga lor sa njaboot parce que sa njaboot ngay njëkk a wàll balaa ngay wàll société bi donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel moo tax faw ñu renforcer contrôle sanitaire ci frontière teres maanaam muy frontière yëpp yi nekk ci ci buntu Sénégal mais aussi ñu wax leen rek suñu solidarité dinañ nekk en contact ak ñoom via suñu ambassade yi ak consulat yi ba nga xam ne bu ay situation amee ñu mën leen taxawu ñoom ak fu ñu mënti dëkk.